jërëjëf ansibillah mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñu tekki saal bi ñëpp kenn ku ne turam ak santam di sant yàlla bu baax juddu yonent bi sallallahu alayhi wa di ziar xalifa généraux yi nga xam ne nekk Sénégal ñëpp leen nuyu bu baax di leen ziar di leen indil nuyoo son excellence le président makki Sall ak gouvernement Sénégal di leen ziar ziar bu gën a tedd di nuyu kilifa diine yi nekk taal bi yépp di nuyu kilifa aada yi di nuyu ñi nga xam ne représentant ministère yi ñu tey nga xam ne ñu ànd ak bokk ak ñoom ci liggéey bi ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk ci yéen di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar tàll seen loxo tàll suñu loxo ku ngeen ñaan daje bi ñu daje tey ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabil alamin lépp lu ko séentu mu nekk yiw pour ñun ak waa Sénégal yëpp. du nuyu nag ki nga xam ne mooy président association bi nga xam ne mu ngi dalal tey di ko nuyu bu baax su ma nuyoo sëñ Moustapha Lo nga xam ne mooy président de la fédération nationale des associations des écoles coraniques bi Sénégal damay nuyu képp koo xam ne moom ak ñu ànd ak ñoom ci liggéey ma jekku ci quelque rek parce que ñëpp ànd ci liggéey bi waaye dafa am ñoo xam ne mënu ma leen bañ a nuyoo di nuyu El Hadj Omar Diène nga xam ne moo représente association des imams oulémas du Sénégal di nuyu Adja Asuba nga xam ne moom moo yore association yaayu daara yi maa ngi lay nuyu baax di la ziar di nuyu Serigne Khadim Ndiaye mi xam mooy secrétaire général de la Ligue des écoles coraniques du Sénégal. di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane Silla mi xam ne président du conseil supérieur des maîtres coraniques di nuyu moor Ngone Ndoye secrétaire général ASOMEC di nuyu représentant daara yu mag yi nekk Sénégal di ci jukki représentant daara Koki sama maam Sëñ Matar Lo di nuyu Serigne Djidi Niang représentant des associations de AGS di nuyu El Hadj Omar Tandian représentant du collectif des Daara Moderne di nuyu monsieur El Hadj Elimane Diagne collectif pour la modernisation des Daara di nuyu ki fi teewal Daara Fass di nuyu ki fi teewal Daara El Hadj Moustine Diop ca Ndar di nuyu Serigne Mor Diop moom tam jóge ca Ndar di nuyu. Médine Souané jóge ci Sédhiou ak képp koo xam ne rek ne yaa ngi jóge tey sa département jóge fi soow ñoo fekk daje bi bu baax a baax doxal tey nag bés bi dafa màgg si ñun ñu am ci fierté bu rëyee rëyee rëy parce que ñu ngi dageel mu am solo lañ dageel tey dama senegal Sénégal mënuñu ko wax sans waxuñu diine l'islam wax nañ ko léegi réew yi nga xam ne ñu gën ràññee ci l'islam ci àddina bi Sénégal da cee bokk le président wax na ko léegi xale yi jàngal yàlla dogal ñuy dem di def concours jogante ci tari alxuraan gis nañ seen taxawaay ak seen positionnement ak li ñu am ak li ñu indiwaat Sénégal loolu wane na Sénégal diine bi am na fi doole lool parce que quatre-vingt-quinze pour cent population bi jullit lañu waaye dañoo fonk tam suñu diine fonk suñu lislaam kon tey pës bi da nga ñëw sur ton excellence le président Macky ñëw di leen indi nuyoom di indi ziyaaram di indi sam félicitation encouragement parce que yaakaar naa ne Sénégal bi ñu avenir Sénégal ci nga xam ne mooy programme Sénégal émergent nga xam ne Sénégal daf président dafa ko teg pour fexee nan la réew mi jëmee kanam dafa jël le développement du capital humain teg ko ci digg bi mooy askan bi ndax lañ jàppale bu ñu nekk ay sénégalais yu baax yoo xam ne dañu jàppale seen évolution réew président nag ci loolu mu jël xale yi teg ko ci au cœur de son programme teg ko ci digg bi ne nañu protéger xale yi nañ leen jàngal ñu ngi seet seen santé nañu xool ba xam naka la def bu nekk ay sénégalais yoo wax ëllëg dañu mën a participer ci développement réew mi loolu nag mu mënuñu ko waxtaane te duñ ci boole sëriñ daara yi parce que rôle bi nga ci joué dafa am importance contribution bi ngeen ci indi dafa am solo te loolu c'est culturel parce que ci Sénégal la bokk nee naa doo dem benn fii Sénégal benn village boo dem defee fekk ko fa daara amul presque ay doomu soxla ñu dañ fi nekkal ñoo xam seen ay maam ba seen ay mamaat ci loolu la ñu dund ci loolu ñu xam di jàngal alxuraan dëkk ba ñu dëkk fa taal fa ay jàngu dafa jàngal alxuraan kon loolu Sénégal buñ ci bëggee wax ci avenir Sénégal wax ci avenir xale te bàyyi ñooñu kon jaaruñ ci bunt bi kon ñu ngi leen sant bu baax ci wuy si bi ngeen wuy si bés bi dina ci remercier bu baax di wax ne Sénégal benn Sénégal la ñun ñëpp ñoo ko bokk lépp luñ ci dox rek ak luñ ci wax dañ ko war a boole ñëpp waaye nag boo dugg ci kër da ngay dugg ci gunt bi mu ñëw alxuraan wax daara wax jàngale wax yalwaanu xale te boole wu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sookul bi ñi nga xam ne ñoom ñooy yor boobu fànn xam naa ne nag jafe-jafe yi moom bari na xat-xat yi bari na parce que gis naa ne ñu bari subi si nañu waaye dañoo bàyyi seen ginnaaw yu leen mën a teewal moo tax kon sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax ci taxawaay bi ngeen ñëw ak bés bi nga xam ne moo ngeen fekk si parce que xam naa du def du gërëm ak sant ak yaakaar tamit ci ne bës bi dañ fi jëlee loo xam ne lu am solo la parce que ci turu son excellence président Macky Sall dafa gis ne xale yi dañoo war a jàppale dañoo war a protéger dañoo war a dimbale dañoo war a jàngal dañoo war a aar mu jox ñu ay directives ne dañoo bëgg képp koo xam ne rek sectoriel nga ministre yi nga xam ne nekk en charge de la protection des enfants képp koo xam ne da nga yëngu ci domaine boobu rek bëgg nañu ngeen taxaw def une concertation ministérielle waxtaane ko ba xool naka la ubbi bunt yi ba xam naka la def ko élargir ko ci acteurs yépp ku ci ne wax sa contribution pour que loolu ñu mën ci indi avancement yu am solo ci loolu nag ñu ngi ciy gërëm monsieur Amadou Ba ministre des affaires étrangères moom ta yebal na fi ndawam ñuy gërëm monsieur Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur moom tam yebal na fi ndawam di nuyu di remercier le ministre Malick Sall moom tam yebal na fi ndawam di nuyu le ministre Mansour Faye moom tam yebal na fi ndawam di nuyu le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé di nuyu monsieur Mamadou Talla nga xam ne moo yor daara yi ministre de l'éducation nationale di nuyu Abdoulaye Diop nga xam ne mooy ministre de la communauté de la culture. ci président de la république ci directive yooyu mu joxoon daf ci am yu am solo wax nañ ko léegi yaakaar naa ne. waxtaane nañ ko waaye xam nañ ne laa loi sur les daara dañ ko war a génne parce que ñun sax gàllankoor la si ñun waxuma laa yéen parce que tey jii boo bëggee organiser waa secteur boobu te amoo outil juridique boo xam si nga mën a jàpp pour ne ñii ñooy daara ñii duñu daara loolu dafay indi ay jafe-jafe te yaakaar naa liggéey boobu nag dama leen ci interpeller bu baax parce que wax nañ ko léegi ni suy liggéey lu baax taaru l'islam Sénégal taxawaayu diine l'islam ci Sénégal image bu mu am bu amee ñoo xam ne ñëw pour yàq ko war nañu mën taxaw pour loolu war a mën dañ te loolu nag yéen la nekk seen liggéey parce que yéen lañ jaxasu seen biir di xajamal seen liggéey waaye Sénégal def naa ne buñ dee diine buñ ne l'islam buñ ne jàngale rek fii la fekk baax ñu ko bëgg a xajamal yaakaar naa li li tax mu gën a metti mooy tey bu ñu bëggoon dimbali état tey dimbali ñi nga xam ñoo daara yi ndimbal bi du egsi si ñoom war egsi ñëpp parce que daf ci am ñeneen ñu ci dugg joo xam ne ci biir dina taxu leen jóg jàng taxu leen jóg waaye comme ni ko waxee léegi suñu partenaire wax ko léegi dañu bëgg am koom-koom moo tax ñu dugg ci loolu. yàlla dogal nag ñu defoon ñaari expérience si loolu président de la république ci directive yi mu joxe bi mu dindee code de l' enfant nga xam ne mooy li nga xam ne àq ak yelleefu xale la indi la loi sur les daara. dafa joxe ay directives tam nañu fexeeb tam dimbale ba xale yi nga xam ñu nekk ci mbedd mi tam ñu wàññi ko bare bari parce que mi ngi xajamal image yu lislaam ci suñu réew ndax tey jii buñ demee ba ñu nga xam ne bitim réew nga xam ne xeex lislaam moo leen tax a jub wala xajamal lislaam di jël image yi di ko porté ci àddina bi yëpp pour wane ne Sénégal seen lislaam bi ñuy wax seen diine lii la ñuy def ci xale yi ñu ne bàyyi ci mbedd mi taxawaalu donc ñooñu dañu war a fexe ba loolu ñu ko wàññi ci réew mi yaakaar naa nag def nañ ci ay jéego yu bari am nañ ci ay xalaat waaye xalaat yooyu doyuñu parce que nag ki nga xam ne moom moom moom nga war a waxal ki nga xam ne moom nga war a laaj xalaat soo demul ci moom laaj ko xalaatam ci li nga bëgg a liggéey defaa liggéey boobu doo am solution parce que nag bu ñu Daara Sénégal bu ñu nee xale yi yelwaan bu ñu ne ci mbedd mi yaakaar naa ci gën a bari ci yéen ñii lañ ko mën a mën a taxe parce que bu ñu xale yi ci mbedd mi rek sa xel dem ci Daara te pourtant Daara yi. bu doon tey xaymatee li nga xam ne xale yi nekk ci mbedd mi quatre-vingt bu nekk bu ñu ne cent lañu xëy na cinquante ñoo jóge daara yi yeneen cinquante yi soit dañu jóge ci sous région bi wala ñu jóge ci daara yi nga xam ne yi daara taxu leen jóg waaye ut alal moo leen tax a jóg moo tax ñu xalaat ne bu ñu ko àndal ak yéen lëkkaloo ko ak yéen pour ko loolu ñu mën ci réfléchir dina tax ba loolu ñu mën a segg ñi nga xam ne ngeen ne ci biir di yàq ak ñi nga xam ne dañuy yàqal image yu parce que ñoo ñoo xeex l'islam ñun en tant que état mu ñoo dëkk Sénégal juddoo fi jàng alxuraan suñu doom ñu leen jàng alxuraan képp koo xam ne sénégalais nga boo jugee li nga njëkk a def sa doom bu mat a jàng alxuraan nga koy dugal